tàmbalee ba léegi tey nag juróomi fan ci weeru euh, koor gi ñu nekk euh, ni ngeen ko gisee kuréel bu ki ñoom ñoo yoroon njàng mi muy liggéey boo xam ne tamit danañ koy laat suba suba di juróom benn fan ci weeru koor gi euh, ngeen xam ne kon kuréel 1 Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo ayewaat njàng mi kon kuréel 1 ñoom ñoo ko aye bi nga muy kuréel bi nga xam ne sëñ Ablaye Diop moo ko jiite lii mooy li nga xam moom lañ ci andi woon gis ngeen saal bi kon mel na ni njàng àgg na mbégte mi foo weesu foo xool gis ko fi Euh, cant gi foo xool gis ko fi sëriñ bi ànd nañ kook moom muy beneen jataay boo xam ne tawfeex gu rëy yoo xam ne sëñ Tuubaa defalaat nañu ko kon lii mooy li nga xam ne mooy programme bi ñu leen andiloon tey euh, te ngeen ko doon topp ci almouridiya ñu leen di ñaan tam ñu àndaat ak yéen yeneen programme moo xam ne yëpp moo ci des fii ba màggal gi àgg euh, fidèle téléspectateur de almouridiya c'était donc cette journée n'est-ce pas consacrée encore a un après-midi où l'on a senti véritablement cette extase de la part de tous ceux qui étaient dans la salle. Et le calife a suivi cette déclamation qui était faite aujourd'hui. Le courriel dédié, c'était le courriel Isbutarkhia de Rufisque. Et ce courriel qui a eu à cœur de déclamer des mélodies, n'est-ce pas, que vous avez suivies hein, depuis 17h30 jusqu'à 18h30. Et nous vous annonçons demain que le courriel qui sera à l'honneur, ce sera le courriel 1 Isbutarkhia, le courriel dirigé par Serigne Ablaï Diop. se trouve à Dakar, mais il y a également d'autres membres qui sont issus des autres cellules que compte Hizb ut-Tarqiyyah. Donc euh, s'il faut dire que c'est le grand courriel des ut qui sera encore à l'honneur demain. Donc euh, véritablement, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous et nous prions Allah le Très-Haut qu'il accorde une longue vie une santé de fer au vénéré Khalife et qui est en train d'être accompagné, n'est-ce pas? avec la psalmodie des Khassaïd, puisque c'est également le le courriel 2 qui va se charger de raccompagner l'Akhreb jusque dans ses donc pour le programme d'aujourd'hui. Il est 18h30 passé et c'est ce que nous pendant des jours jusqu'à mois de Ramadan. Et fidèles merci d'avoir été encore présents et nous vous invitons à suivre les autres programmes et euh, de, de, temps à perdre, nest puisque tout ce programme sera rempli. Vous aurez Ndogu Touba, vous aurez le viatique, vous aurez tous ces programmes qui vont de pair avec le mois de Ramadan. Merci d'être fidèle. Wassalamu alaikum wa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 خير ضيف أتى ci kilifteefu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ci njiitalu Serigne Cheikh ibn Serigne Saliou Mbacké Serigne Mourtada Mbacké ibn Serigne Saliou imaamu jumaa yi Serigne Saliou Jannatul Mahwa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 بالبشر والمداد